jaajëfal alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni ñu ko waxee woon démb ci yooyu koor bëggoon bàyyi ci nun koor bëggoon a bàyyi ci nun dem na bi mu demee léegi léegi tey mu mat weer mu dese fukki weer ndeysaan daal di dellu siwaat daal di tudd kooru deux deux mille dix neuf di san yàlla ñu fi fekk te fekk leen fi waaw tabarkalla koor bi muy dem di ñu fi bàyyi bëggoon na tomb yi ma doon lim yépp nu man ko tey ñaari ci teg yi ci des mooy wa ahsinu dee leen def lu rafet allahu akbar wa ahsinu rafetal leen sallallahu alayhi wa sallam dem ba ne bu ngeen di rendi sax na rendi ga rafet mu yéen mu ne waaw mu ne yàlla dafa bëgg lu rafet na ngeen def lu rafet ba bu ngeen di rendi sax na rafet ci waaw bu rendi sax bu ñu ko def na rafet rendi am xar mbaaw bëy mbaa mbaa gëléem mbaa nag su ngeen di rendi walla ganaar na rendi ga rafet gisula mag ñi dañ daan tere rendi ganaar ba tàggale bopp ba ak yaram wa dañ ko daan tere waaw waxuma laa na ngay rendi dem xar ñoom seen yooyu rendi gi dañu bëgg mu rafet lu rafet mooy loo xam ne bu boo ko defee bañ koy nett li doo bëgg ñu bàyyi déedéet doo sa git doo sëggit waaw moo tax yu rafet yooyu ñaare ngay toog ci pénc dégg ñu di ko tudd ngay bëgg safaan ba nag ku ko yëkkati nga ne un wala dalaa bañ def rafet fa bokk ci li yàlla jàppi nit ku nite waaw amanu wa amilo saalihaati amanu wa amilu saalihaati def lu rafet def lu rafet mooy li nga xam ne boo koy def doo bañ ku ko nettali doo bañ ku la fa bett doo ko ragal waaw inna al jamila wa in taala alzamaanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa man zaraa benn taaxuraan ko arab moo ko doon wax nee na lu rafet boo ko jiyee cil ma xambaa yaa ngi koy yaa ngi koy récolter càlle boo ko jiyee càlle mën nga koo récolter kub kub waaw lay ndeysaan moo tax mu ne isra jamilan walaw fii xayri mawdiihi mu ne rafet boo koy def bul jàpp ne barab sàngam laa ko war a def na rafet rek hmm? waaw waaw walaw fii xayri mawdiihi lu rafet rekk mel noonu ñaare def ko te yàlla tax doo ci génn mukk di sëgg bu yàlla taxoon nag yaa xam yàlla tax nga di ko def dafa am ñaar ñu alxuraan nekk li ci ci ci biir tuddul seeni tur waaye ñu dëkkoon ak ñoom xamoon nañ ne lu rafet lii alxuraan di wax nii diwoo ko def kenn ka dafa am soxna ak ñaari doom ñu doon ñeent ci kër gi ñoom ñeent lañ ci kër gi ñaari doom yu góor seen yaay ak boroom kër gi ñuy doon ñeent ñeent ñi biñ jógee ci koor gi kenn ka feebar kenn ka feebar papa ji ne yàlla maa ngi lay ñaan nga wër wërsëgal sama doom ji wér su wéree dinaa la waral ñetti fan loolu la wax yaayu xale bi ne ko ah, kon de dinaa la ci tegal ñetti fan muy juróom benni fan fereeru xale bi ne ah man de kon danaa ci teg ñetti fan muy juróom ñeenti fan xale bi feebar tàllal loo xam ne moom tam dana ci teg ñetti fan muy fukki fan ak ñaar la waa kër gi bëgg a woor ñoom ñeent ñoo ko bëgg a wooral yàlla fukki fan ak ñaar kii ñett kii ñett kii ñett kii ñett <coughs> trois fois quatre douze waaw <laughs> je pense que noonu la professeur ah xale bi toog génn guñ semaine bi mu wér peleg dara jotatu ko boroom kër gi woote ne kon nanu um koor giñ diggoon yàlla nan ko defandoo ñu ne ayca ndeysaan ñu um altine woor ba dog di bëgg a jot kër gi li fi nekk mi ngi toll ci benn kopp foonde waaw benn kopp laax daal moo ne ci kër gi ñoom ñeent ku ne war a guux jox sa morom jenn waay taxaw fële yalwaan leen ko waaw jenn waay taxaw fële yalwaan leen ko ñu sarax ko ko ndax daf leen wax du daw yaram waaw miskin la mu leen man handicapé laa ñeenti fan nii dugub du sama gémmiñ gi ma yaakaar leen yéen waa kër gi ci lu ma reere wala lu ma ndogoo boroom kër gi xool jabar ji jabar ji xool doom yi ñu xoolante ne ko am yàlla jox la mu ñëw jox ko kopp fonde ba ñoom naan ndox continue daal di woor mardi bi ñu wooree ba heure ba jot benn jirim daal di fay ñëw jàmbat leen digganteem ak tàntaam jàmbat leen coono yim nekke jàmbat leen xiif bi mu nekke ñu xoolantewaat yëkkati kopp fonde ba jox ko naa ndox continuer daal di wër mercredi benn waay dawe ca prison ba ndeysaan jàmbat leen lan na ci prison ba ak jafeñ jafeñ jàmbat leen kañ la fa duggoon ak coono mu nekke ñu sarax ko kopp fonde ba muy ñetti fan yoo xam ne bu ñu tollee ci ndogu li wara war a ndogoo la saraxe bu doon fii tey mën ngaa wax ne du kopp ndogu ëpp na ko palaat bi lañ te palaat bi lañ teg ceebu jën bi leen ki yalwaane yëkkati bool ba jox ko ko noona ca ëllëg sa ñu tiim salaat bi leen ko ki yalwaane yëkkati bool ba jox ko ko noonu ci ëllëg sa ñu tim supp kànja ba mu ko ko yalwaane yëkkati bool ba jox ko ko noonu waaw maanaam daal ñoom bu ñu tollee ci ndogu rek am ku ñëw yalwaan leen ko mbokk yi jëf jooju ñu doon jëf sunu borom ne du ma tudd seenu tur ndax tur intéressé wu waa dinaay tudd jëf ji ndax jëf ji amee intéressé ndax dafa rafet yéen ñii de su ma bari loon ci yéen sama pénc mi jag <laughs> wallaay ndeysaan te itam bu sos société bi bari woon ci yéen affaire sociale daal di jag mooy nit ku nangoo jox moroomam nitam lum soxla ni ko ki ko di jël di soxlaa ndax na tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ku munta joxe loo bëgg baaxagoo ku munta joxe loo soxla ni ko sa moroom soxlaa baaxagoo nit day mën a joxe lu bëgg allahu akbar yàlla ne waa kër googu seeni tur duma ko fi tudd duma lim ab liste ñeent ngeen tur yu yitteelu ma waaye jëf ji moom fokk ma tudd ko fokk ma tudd ko mu nekk ci sama téere bi ma gën a fonk ci téere yi ñu di ko jàng ba yom la xiyaam allahu akbar mbokk yi buñ ko jàngoon ci théorie ba noppi nun ñëpp ñu koy pratiquer dal di mel ni waa famille bii ndeysaan daal di mel ni waa famille bii ndeysaan bu dee fajar duma mën a tajwid ndax baat bu naqar bi daleen di yee wala mu déranger leen waaye bu doon bëccëg nga xam ne <laughs> kenn nekkul ci nelaw kon dama ko jéem a tëj wit ak baat bu naqar bi tabarkàlla waaye comme heure bi heure de heure de yeewu la <laughs> ay six heures onze yi nga nekk fi tëj wit ba baat bi naqaree ba moytu nit ñi xol bu naqar lu yendoo wala seen tension yi monte <laughs> yàlla mu yàlla yërëm waaye daal mbokk yi yàlla ne famille bii yéen day du seen tur waaye jëf jii de ñor na ma daan na yonent bi waaw góor mun sànn mu bi mu naa ah, mun ne ko waaw góor sa njaboot def nañ loo xam ne tey fokk ma joobe ko hmm? mu ne ko te yar bii yaa ko def ci ñoom lii rekk nag laa bëggoon ci yow di sànn yonent ba kontaan ndax njabootam a ko def waaw sunu ba yonent bi ne sunu borom lu ñuy def mu ne ko gis nga film bii mu ne ah mu ne yóofoon na bi lu ñu wax def ko <laughs> allahu akbar yóofoon na bi bii mu ne ah, mu ne li ma neex ñoom mooy lu ñu wax def ko allahu akbar yóofoon na xanaa benn ngoog lu ñu wax def ko tabarkalla ka doon wax ak suñu Cheikh Mbàkke na ko Mbàkke loo wax def ko mu ne ko ah lu mu wax ne lu mu wax def ko de waaye lu mu nar sa def du ma ko wax <laughs> yuufuuna bin ne ko famille ngi nii boo xam ne luñ wax def ko loolu rekk de doy naw xa doy naw tagg famille boo xam ne luñ wax def ko mu ne mu ne ko doy naw tagg waaw mu ne ko ak lan mu ne wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira waaw dañoo ragal bis boo xam ne euh, aw ayam siiw na fu ne mu ne ko lu luñ def mu ne liñ njëkk a def mooy yóofu na bi nadr waaw mooy trois jours yi ne woon danañ ko woor woor nañ ko te xiif yàqalu leen ko mar yàqalu leen ko bëggee yàqalu leen ko yàlla mu ne jëf jooju neex na ma lool mu ne waaw mu ne li tax ñu jëf-jëf ji neex na ma lool yoofuuna wa yaxaafuuna waaw nañ déglu verbe yooyu nag sunu borom di tëgg yoofuuna wa yaxaafuuna waaye luñ def wa yut'imuuna yuufuuna wa yaxaafuuna wa yut'imuuna wa yut'imuuna dañuy joxe lu ñu joxe at-ta'aama ñam wa nga xam ne moom dong lañu am waaw firikat yi ñooy def bu liif ak laam amee ci baat la muy firi bokkut ak bu liif ak laam amutoon ndax bu ne wa yut'imuuna ta'aaman mooy am na lu ñu joxe am na lu ñu dese waaye bu ne at-ta'ama mooy la ca kër ga lépp lu ñu war a lekk loolu lañ joxe waaw bool bi ñu tiim koy lekk daal noonu lañ ko yëkkatee joxe ko moo tax mu def alif ak laam wa yut'imuuna at-ta'ama waaw bu ne woon wa yut'imuuna min at-ta'ami kon dañoo dañoo tibb jox leen ni na koy di waaw bu ne woon wa yut'imuuna min at-ta'ami kon ni ndongo yi di saraxee lañ saraxee waaye wa yut'imuna at-ta'ama mooy lépp lañ joxe cët tët tët tët yuufuuna wa yaxaafuuna wa yut'imuuna luñ joxe at bool ba nga xam ne moom képp mu ni ci kër gi kër gi amul ndaamaraas amul bonbon <laughs> amul gerte caaf du kërub ndaw kunda li fi nekk ci kër gi lépp daal mooy li ñu tiim bu fi xasee jóg njëm njëm gémmiñ amu fi at mbokk yi allahu akbar foofu la sunu borom tëgge wax ji at taama kuñ ko ñoom nag bañ koy jox nuñ mel ñu ne ala xubbihi ala xubbihi ci kaw lii ñu joxe nii ni ko ki koy yalwaan bëgge nun lañ ko bëggee ndax ñelwaan dañoo xiif ñoom waa kër gi dañoo woor ala xubbi yi tax joxe loo bëggut yomb na waaw joxe loo bëgg a jafe waaw xaj Abdul Aziz ca garambu bam ba ndeysaan ala fa toog ca jàkka ja di waxtaan am ko fa jënde garambu bu boo xam ne nee na ki alaaj Abdul Asiis rek laa ko ko yéene waaw boole kook dàll yaak mbaxana ma yët ko waaw sëriñ ba ne ca jàkk ja ndeysaan ala hubbihi kontaan lool ci grand bi teg ko ci wetam jenn waay ñëw fa diis ko ngénteem loo xam ne amagulum xar te ñeenti fan a ci des alaaj Abdul Asiis yëkkati mbubb ma ne ko am mbubb mii nga dem jaay ko mu yëkkati mbubb ma dem jaay ko waaw quatre-vingt-cinq mille da ko wanteer sax nag waaw daal dem jëndum xaram jënd ceeb ak diwlin ndeysaan fas yi nii ngénte waa ji jënd mum mi ndekk alaaji Abdu Si lu koy jëndal <laughs> seetete daal dem jënd ba moom tam daal di gàddu ne ñëw fekk toog noppeeguñ ci waxtaan wi daal ko yën mbubb mi ñëpp xoolante sëñ Abdou Hadj Abdoul Aziz ndeysaan daal leen wax ak ñoom ci waxinu daara ne leen mbubb mi daa ngénte ji woon ñëpp ne këpp allahu akbar maanaam joxe loo bëgg taxul yàlla xañ la ko ala hubbihi moo kuñ doon jox kuñ doon jox xaaj ma soo mbay sunu doyen mooy wax looloo jara laaj nag bu doon moom loolu lay wax mu kuñ doon jox taa ñam wa mu ne looloo jara laaj nag waaye mbokk yi loolu question baa la c'est question pertinente kuñ ko doon jox miskinan lëndi ki leen yalwaan miskin la lu tax baat bi amut alif ak laam mooy xamuñu ko xamuñu ko bu ne woon wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi al miskina ñu xam ne miskin bi dañoo xam papa dañoo xam yaayam te xamuñu papaam mais ci koñ bi la dëkk mais miskinan amul alif amul laam mooy xamuñu fu mu jóge tey lañ ko mas a gis bu mu ci duutuñu ko gisati allahu akbar wayaat yi bu ñu waree mardi ab jirim moo fa ñëw jirim ban yatiman xamuñu ko bu ne woon al yati wal ah, ñu xam ne xam nañ ko waaye ñoom xamuñu ko wa asira luy asir mooy ka dawe ca prison ba prison ba dawe ca prison ba lu tax amul alif ak laam xamuñu ko yàlla nee na jëf ji rafetaay gi tax na da koy tudd ci alxuraan dugal ko ci saar wu ñu tuddee nit ndax bëgg nit nite suratul suratul insaan allahu akbar <laughs> ndax bëgg nit nite nit nite mooy garabam nit daa war a nite su ko defee am na médicament bu tax du feebar waaye yàlla nee na waa kër gi bu ñu joxee bañ joxee miskin jox yatim jox asir xaaruñu fa ñu naan merci yàlla na la yàlla fay ak yàlla na nga dem màkkaak xaaruñu fa ñaan yooye innama lii rekk a tax ñu ko doon def nutimukum li wajhillah yàlla rekk a tax hmm? laa nuridu bëgguñu minkum ci yéen ñett ñi miskin yatim asir jazaan bëgguñu ngeen ñuy fay ëllëg jox la suñ boolab ceeb bii taxul ñu bëgg laa taxanloo ji <laughs> wala shukura bëgguñu it merci ñun li tax ñuy def mooy inna naxaaf min rabbina yawman abuusan qamtarira sunu borom ne déglu leen ma bilaay lebal ngeen ko mën a fay lebal ngeen ko mën a fay koo xam ne ku ko lebal ker guddi la lay fayee ngay xalango ba cil ma xam mbaakool te du jeex mbokk yi yàlla def ne ci koor bu nu wooree ba noppi wa ahsinu nañ mën a def lu rafet ak kër ngi nii gu def lu rafet sunu borom nee na fa waqaahum laahu sharra daalika al yawm lépp lu ñu ragal yowmal xiyaam keroog seen jëf ji tax na dindi naa ko ah bon boolub ceeb waaw boolub ceeb ca bu njëkk ba boolub euh, salaat ci bisub ñaareel ba euh, boolub suppu kànja ci bisub ñetteel ba ñetti ñetti yàq yi tax na yàlla fegal leen sharra daalika al mu yën waaw waaw ndeke def def yu rafet yi ah wuutu na julli yeeg koor yeeg aj yi ba def la ñuy def ñoomit it def yu rafet yaa ngoog de mbokk yi yàlla loolu leen defal mu ne déedéet wa laqaahum nadratan wa surura waaw bu ñëw yow man xeyam du jub sunu borom la suñu borom muuñ ñu ne këpp xëm ay ku yàlla muuñ nadratan wa surura la ilaha illallah xam naa ko ni Abubakar Fay sax fi ne jóg na jàpp ca nopp ya waaw ceet tit tit wa laqaahum nadratan wa surura waaw ñu jàkkaaroo yàlla rekk yàlla muuñ <laughs> ceet tit tit lisaan wa jazaa wa sabaru mu faye leen muñ giñ muñ seen ñetti ndogu yooyu lu mu leen ca faye jànn bangal sa baaram waxariira mbubb ma la daqal ca la yem mu takki ina fiya alal araayiki tefal leen ci ay njoowaan ca la yem laa yaroon fiha shams shamsan wala sam harira ca yem wa daaniyatun alim dilaaluha ca la yem wa dullilat xutufa tadlila ca la yem wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaab kaanat qawaarira qawaarira min fidda qaddaruha taqdira ca la yem wa yusqawna fiha ka'san kaana mizaaju zanjabila ca la yem wa yatuufu alayhim wildaanun muxalladuuna <laughs> in haada kaana lakum jazaa wa kaana sa'yukum mashkuura mbokk yi lii jar na loo togg joxe ko allahu akbar yàlla na ko yàlla defal te defal na ko ñun ñëpp ndeysaan première dame ndeysaan euh, madame Faye Sall dama woo bër ci ca jamono yële ceeb ba ca daara ji jeex naam mën na ko déedéet jeexagul mën na ma jeex laay bañ waaw ndeysaan mën na ko jeexagul de waaw mu ne jeex laay bañ mën na ko yàlla fay mbokk yi def lu rafet a noonu kër gi def kër googu def ko sunu borom tudd ko waaw waaw tudd ko waaye tuddul seen tur déedéet jëf jee ko neex waaye am keneen ku jëf moom daa romb lu normal ni ma koy waxee mu normaliser ko bi mu ko normaliser sunu borom ne ko wala sawfa yarda buñ tasee rek nga kontaan bu yàlla mayee nu dund ba lëndi nu ñëw nag ci tomb bi nga xam ne moom la ko yàlla jeexale te sëriñ Mbàkke si la nekk ci ci fan yi eh, la muy aj màkkaak waajaaye waak yu nu demee ko defee bu nekkee ci genn wàll ga ndax aj màkka ibaada la tarbiya la bu sëñ Mbàkke nekk ci ibaada ga nu jéem koo nekkal ci tarbiya gi tabaarkàlla lañu boole ñaar yi ibaadatun wa tarbiya jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo lu jub ci wax ji borom la lu ci jubut du moom man mii sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci waa firiñ fàncal ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor yii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu